ci yenn kaay yi ci yéen kaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye daal leen a fort yoo xam ne moo gën a soxal yéene bi dañu xamal ne maanaam daal gën gaa yàgg samedi wala àjjuma dana amal daal am ndaje moo xam ne daal njiitu réew mi dina ko teewee ndaje moomee nag moo di ca Sapon waaw ndaje mi nga xam ne daal maanaam C7 yéenekaay bi duñu xamal ne loolee kay jamono ji yittal la ci ñi nga xam ne nag moo di njiitu réew mi ci jamono jojee L'Observateur duñu xamal ne nag leneen loo xam ne nag yittal na ñi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Sénégal yéenekaay bi duñu xamal ne loolee kay mooy baykat yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Sénégal ak ñi nga xam ne nag ñooy sàmmkat yi jamono ji nag jaaxle dëgg la ñu def yéenekaay bi duñu xamal ne moo xam Kaffrine wala Kaolack wala sax fi nga xam ne moo di yeneen dëkk yi nga xam ne daal ñoo nekkee ci réewum Sénégal jamono ji jaaxle dëgg la ñu def li ko waral bokk na ci nawet gi nga xam ne ci maanaam daal Sénégal yerte gu métti gi nga xam ne am na ci waaye tamit ba léegi jeexagut ci yéen bi di source a duñu xamal ne jamono ji nag ñàkku kaaraange dëgg daal moo am ci réewum Sénégal jamono ji nag inédit lu kenn mun ta wax moom moo xew ca pont an la loo xam ne daal yoroon nañu ko waaye de mën a joojee ñeneen ñoo xam ne ñu leen di joxoñ baaraamu tuuma muy nga xam ne nag ñooy dawalkatu jakarta yéen bi duñu xamal ne ñoom kay jamono ji maanaam li nga xam ne mooy banditisme urbain maanaam daal ñaawteef ji nga xam ne daal day am ci réewum Sénégal bëri na ci loo xam xam nañu lépp loo ndax jamono ji ñi nga xam ne nag ñoo di chinois yi nañ liggéey bi Cheikh Bamba ci yéenekaay bi du xamal ne chinois kay bu fekkee ne tàmbali nañ liggéey bi loolee kay dafay wone na maanaam daal corruption am na ci maanaam guerre gu rëy goo xam ne am na ak les waxu Omar Faye leera askan wi du xamal ne njiitu mi Macky Sall maanaam daal wax waxet gii nga xam ne moom kay jamono ji ñi nga xam ne nag moom daal wakaam yéen kaay bi dañu xamal ne Ava Tunkara étudiante la woon ci wàllu médecine amoon lu toll ñaar fukki ak ñaar yéen kaay bi dañu xamal ne moom avocat faatu na gannaaw ba nga xam ne jógee na fi nga xam ne nag moo di troisième étage fa la jógee daanu fa na daal di ñàkk bakkanam yéenekaay bi dañu xamal ne police wakaam jamono ji nag ubbi nañ ci enquête ngir xam mbir yooyee ana fan lay mujjee El Hadji Ousseynou Ndiaye